de ce qui s'est passé à Alassane Djigo Et c'est le lieu pour moi ici d'apporter des clarifications. Qu'est-ce qui s'est réellement passé euh, Je voudrais revenir euh, un peu sur ce qui s'est passé à Alassane Djigo pour le regretter. Regretter euh, que le département de Pékin n'a pu être à la hauteur d'organiser la belle fête de clôture du meeting de notre tête de liste Benno Bokyakar regretter que pour des raisons d'organisation, que nous n'avons pas pu faire la fête jusqu'au bout. Regretter que un petit groupe cherche à caporaliser et à prendre toutes les décisions sans consulter ceux-là qui aujourd'hui sont incontournables dans le débat. Moi, organiser événement Aboudainon. Diana. mobilisation nous avons fait une mobilisation exceptionnelle ils nous ont ils ont cherché à nous bloquer quand nos jeunes ont pris position ils ont ont dit dañu ci buntu Ils ont dit duñ parce que Ils Mbaaw ñëw pancarte ils sont allés faire euh, euh, euh, chercher les vieux les vieilles pancartes yi nekkoon mairie bi ñu obstruer di dor dóor suñu jeunes jeune di de di de di leen C'est fi ñu nekkoon te loolu mënul ak bilan président de la république. président de la république bilan am partout dans le département de Pékin. Dina wax arrondissement

ndam bi du ndamu Masamba du ndamu Mademba ndam bi ndam président de la république la ak ñi nga ñom le euh euh teg ñuy liguel Sénégal parce que bilan bi bo ci dindé li nga xamné li bilan bi indi du dess dara donc ndam bi ndam bi ndamu président là il faut ñu déggoo ci ku nek amna contribution bi mu

wala ñu jëmele sen contestation 2019 ba ñu door leen ñu continuer wat di contester mais lolu amul ñëriñ li am ñëriñ mo nañu xamné perte nañu perte nañu. loolu bettuñu loolu bettuñu parce que ñi mu ñu jàkkaarloo woon ñoo leen ëpp doole Idriss ñak ñak ñak aron département am Malick Gakou ñak géejuwaay nekul lu ñu bett. Idrissa Diallo ñàkk département de Pikine nekkul lu ñu bett euh, Khalifa Sall ñàkk dakaar nekkul lu ñu bett ñi ñu jàkkaarloo woon ñoo ñoo ñoo bëri doole ñi ñu jàkkaarloo woon mooy coalition Benno Bokk Yaakaar à la tête président Macky Sall ki nga xam ne dafa woolu le premier ministre Boun Abdallah Dionne def ko tedd de liste ñooñu nag. yàlla xam na ni tolloowuñu woon ak ñoom doole parce que li président defar réew mi waa Sénégal xam nañ ko gis nañ ko loolu moo tax ñu fay ko ba delloo ko ba ba wis ñan yan gaa yan gaa